bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina muhammadin wa alihi wa saxbihi ajmain alsalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu màgg yu ñu nekk ñi teewu ci barab bu tedd bii di jumaa ji di topp waxtaan wi ak ñi nga xam ne nekkuñu ci biir jumaa ji tey topp waxtaan wi ci jumtukaay yi nga xam ne ci la waxtaan wi di jàll ñu di ko teewlu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel day mel na tey jii nag mooy jataay bi jiitu ci jataay yi nga xam ne dañ koo jagleel laaj ak i tontu mu toll ci ñeenti jataay ñu fas yéene cee and ak sëriñ Mbacke Abdourahman moom mi nga xam ne mii nes na ko ci jataay bi yàgg naa ànd ak mbooloo mi daayira muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bi ci defe ay waxtaan ci defe ay jàngale ak ci tontu ay laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokki jullit yi mu indi leen ci ay leeral kon dañ koy bàyyi mu nuyoo rek bu nuyoo ba noppi nag ñu door tàmbali liggéey bi kon sëriñ bi bismillah auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di ko tàmbulee ci yow sëriñ Cheikh di la ndokkeel ndokkeel mbokki daayira bi yépp di siyaare bu baax sunu kilifa yu tedd yi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di siyaare bu baax ak di ndokkeel al ummatul islaamiya fu ñu mën a nekk parce que yéen ànd ak jataay bi ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq ak taysiir euh, jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon laaj bi ñu njëkkee kii day laaj mu ne laaye ji sunu borom wax ne qul man xarama zinata allahi allati axraja li cibaadihi waltayibaati min alrizq qul hiya lilladina aamanuu fi lxayaati addunya xaalisa yowma alqiyaamati kadalika nufassilu alayaati li qawmin yaclamuun mu ne dafa bëgg xam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 bu yemal xaamee ñoom jullit ñi képp ñi gëmoon yàlla di ko topp ñooy jotti taraanga yooyu mooy taraangay solu yére taraangay xewul ndax xam nañ jàng nañ ci eh, xadiis bi islaam nee na nit ñi bu ñu faatoo bay dekk ñëpp yaramu neen la dekk waale waaye way gëm yàlla laal tere lañu jox leen ay taraangay mbubb ñu di ko sol ay xéewal tàmbalee sotti bu seen kaw yooyu nag yéefar yi duñu bokk kon taraangay àdduna ci ay yére ak xéewali àdduna yi jullit yee moom fii ci àdduna di ko bokk ak ñeneen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 ci moom mu fay la nuyoo boobu loolu bokk na ci li sax ci e, e, xadiis yu yonent bi salallaahu alayhi saxal ko ahsanallaahu ilaykum kii day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay essence ci fu bokkut ak station yi nga xam moom lañ jagleel pour loolu te ñu xam ne sax loi bi tënk réew mi day tere ñuy jaay essence fu bokkut ak station yi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 nga xam ne moom jaamu yàlla goo xam ne takkook ñaar jàkka ak koor boo koy def dangay woor ba noppi ne ci jàkka ci ngay fanaan ci ngay yenn di jaamu yàlla jàng alxuraan tudd ak julli ak zikkar yooyu ngay def ngir gën a jege sa bopp sa boroom ak ngir gën a fóot sab xol ak sa bakkan ci ay taq-taqi àdduna kon jaamu yàlla gu baax la goo xam ne fonk nañ ko lool di ci soññee rawatina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 ñu ne gaa yi mu tooñoon kii gët amut lu mu leen fayee li fi des mooy kaay leen wàññi seen i ñaawteef jël wàññi seen i bàkkaar ñu wàññi seen i bàkkaar ñoom sëf nga xam dafa dem yóbbaale yiw bu bari waaye fa mu mujj mooy fees dala ki bàkkaar ñu yóbbu ko sawara wala yaasu billaah loolu li koy waral mooy tooñ sa moroom jàmm fi ci àdduna moo tax noonu nag ku ci ameel sa moroom jàmm ak tooñ na nga ko lijjanti balaa faat kon tooñante moom lu mat a moytu la moom la sëñ bi jàngale ca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 foofu sàngara toll kon lu mat a lenn ci lu ko lu baax loolu jullit da ko war a moytu bu ne jamono naqari wala ñi ay lañ wala wala fu ñuy jaayee sàngara bu fa nekk sax Ibrahima daa ko gëm yàlla ba jataay bu toog di fa di fa sa war a fa it bokk na ci li war a moytu baax a baax wallahu taala alam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 dee ko mayee dee ko ngoro du tukki it du fanaan àll loolu moo tudd iddaw bu fekkee boroom këram faatu da cay boole ñaawlu nga xam du du sañ a taaru bàyyi ko nag mooy lan mooy ci biir diir boobu mu dem sëyi fi ñu maye ko fi suba dagg na idda ja mais bu toogoon këram ndax lu bari du bàyyi xel mooy kii iddawu bu toogee këram ne ci yàlla kuñ ko waxut mën naa bañ a xam ne ngi daw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 waaye asaka ñi mu war dëgg dëgg mooy ñi wawmal ñi te wawmal nag koom la koom la tudd mooy alal ju bari waaye daal juróom-ñett fukk gramme ak juróom mooy nisaab sëñ euh, kii day laaj mu ne laaye suñu sunu borom di wax la bëgg ñu leeral ko ko mu ne yàlla dafa wax ne wallaati taxaafuuna nushuuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaja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 ngir saafara jafe-jafe yi ne ci biir kër waaree ci jiitu nag ndax ku gëm yàlla boo ko waaree mu waaru xañ ko lenn ci àqam yu moom moo ci tege wan ko ak ñagas te topp ci loolu it jàpp naa mën naa bàyyi xel fii nag ñëpp ci moom biñ mujjee ñaare mu lay njëkki buñ meree moom biñ biñ war a mujjee moom lay njëkki loolu nag du saafara lu bari waaw euh, kii day laaj mu ne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 al kufru wal fisq wa zulm melokaani ñi atte woo atte wuy safaanook atte yàlla kon du ne saa buñ attee ci tribunal boo xam ne du lislaam rek atte bon la saa buñ fa attee atte bu safaanook bu lislaam kii day laaj mu ne koo xam ne dafa sëngiwu ba noppi njaaloo waaye jotuñ ko atteb atteb sharia mu ne ndax kon su baayam faatoo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 dafa jote boroom këram dem seen kër mhm. lànk ne du del siwaat mhm. ndax am na ab diir boo xam dañ naan diir bii bu ko toogee te ñëwut dañ koy jàpp dañ koo fase lu mu fa yàgg-yàgg te boroom këram néew ko fase naa la demul tribunal ba tribunal woo boroom kër ba atte ne fase na ko hmm. ci buum la nekk maanaam pay mu yàgg du soppali ku nekk am passé la ba ko hmm. lu mu fa yàgg-yàgg nag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 lii nii baaxut ci réew mi ñëpp dañ ko war a bàyyi kon ku ko def def nga bàkkaar ndax def nga lu ñuy tere ndax da ngaa lor sa mbokk yi sa mbokk yi nga dëkk sa mbokk sa mbokki nit moo tax yooyu ñu mën ko bàyyi xel baax a baax mu ñu xajale li ñuy tere mu dugg fi ngir maslaxatu nit ñi ak li ñuy tere ngir dugg fi ngir dimbale ñenn ñaar yooyu dañ koy xam ne kii moom day laaj nee na lu bari ci jigéen ñi nga xam ne dañ di fase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 dama lay waxtu yi mu féex damay ñëw di la jaayal ngir yàlla di la ko may loolu xamis na ko jàppale sa baay walla mu jël la ab ajiir di la liggéeyloo di la fay bu la jëlee ajiir nag dalaa war a wax ñaata lay fay fii bokk ci aada yi nit ñi def kaay liggéey bu kiyee rek moom mosal dara lislaam day tere lool ajiir daa bokk ci ay chartam ñu xam ñaata lañ koy fay ak kañ lañ koy fay loolu mënta ñàkk ngir mu wér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 Euh, mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àttab jigéen joo xam ne dafa am ay doom waaye nen dafa bëgg sëy ak beneen góor boo xam ne bëggul mu xam ne mag la nee na muy nëbbu yi mag yi nangu ko xam ne am na ay doom doomi mag ngir bañ mu xam ne moom mag la loolu ñaari loro ngi ji jenn ji mooy lëntal la ab jullit du lëntal bi ci des it euh, mbir mu dul yàgg la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 ñuy soppi seen melokaan sax ngir bëgg ñu ñu liñ bëgg lépp wóor léeg-léeg gis nit koo xam ne day ngoro nit saa yu ko yëgalee ni bu ñu fi ñëw mu waaj a ba nga xam ne bis buñ ko mayee mu gis ko kam foog kam doon gis ak kam kii kiñ ko may bokkul mën naa tas yaakaar mën naa indi teel a tàggoo loolu dana ci góor ñoo xam ne du ñuy ngoro ji noonu lañ mel waaye bu su mayee ñu seen melokaan dëgg daal di yooyu benn baaxu ci mbokk yi nit day mel ni mel nekk tabiyan yi ku bëgg bëggee la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 ngeen faatu dugg aljanna mooy dooraan sa borom kër bu fekkee ne danga am ay boroom kër yu bokkut ka nga mujj sëyal bu ngeen dugg aljanna mooy doon sa borom kër bu fekkee ne ku mësta am borom kër la bu yowmal xiyaam yàlla dana ko wutal borom kër mbokk yi nañ bàyyi xel yowmal xiyaam ak célibataire amu fa loolu fii ci àdduna la yem yowmal xiyaam célibataire du fa am moo ko wax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 bari na ci yoo xam ne ko ñu sàtt moom ku man ponk yi rek bu la jiitee ba xam hmm. kii day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa taxawal jullik suba mu fàttaliku ne moom julliwul ñaar rakkaay fajar waaw bu fekkee daa ne ci jàkka ji de ñu xas taxawal jullik suba te julliwul fajar da koy bàyyi ànd ak ilimaan julli ñaar rakka suba bàyyi ba mu naaj bu jant fenkee ba mat fanweeri minute wala lu ko jege mu fay ñaari rakkay fajar bu fekkoon nag daa ci jàkka ji bitti jàkka ji di ñëw dégg ñuy taxawal julli te xam na ni ilimaan ji day jàng saar yu gudd mën naa taxaw ci biti la ñaari rakkay fajar ñëw ci jàkka ji te rakka bu njëkk du ko raw kon sañ naa taxaw ci bitti julli ñaar rakkay fajar doo dugg ci jàkka ji waaye bu ko leeree ne bala koo def ilimaan raw ko rakka bu njëkk nag sañatu ko day ñëw dugg ci julli gi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 jéggal naa la saa yoo saa yoo bëggee daal mën ngaa ñëw bu la neexee mën ngaa toog suba waa mu ma ko teggi waaye fii waxulu loolu moom da nga ko war a jox ay àqam léegi nag ci na ko mane bu ñu déglu xëy na bis bu set jafe waaye nga anam goo xam moom boobaa da ko man te ñoom kenn du ci loolu mhm. kii day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne day jënd lu mel nii pepp wala ceeb ci jamono bi njëg gi yombee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 kii day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa julli ci barab bu am sobe te xamu ko lu may ginnaaw bu mu jullee ba noppi waaw li ñuy wax tahaaratul xabas mooy sa yére ak sa yaram ak barab bi nga jullee taq sobe charte la ci wéru julli waaye maa zikri wal qudrati bu fekkee ne yow fàtte woo ko te man nga koo dindi war na la nga dindi ko boo ko defu julli ga du baax waaye dafa mel ni moom da ko fàtte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 bu ñuy miraas bàyyam dañuy miraas suuf sa miraas bâtiment bi léegi nag yooyu yëpp lu war di leer la ci diggante ñi jëflante ki tabax ci kër war naa am lu ko leer ci bàyyam ndax bàyyam da ko may suuf si wala mayu ko ndax moom moom tabax wala bàyyam moom tabax lu ci nekk rek ak atem bu moo moomee suufam ndax bàyyam ak ko may moom tabaxam loolu kenn du ko miraasaale ndax dem mel ne bàyyam génne woon na ko ci moomeelam njëkk muy faatu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 bu dee des wu am solo bu dee dog dagg yu ndaw yi nga xam ne nag liggéey bee ko laaj nga xam ne mënee su ñëw mbubb te ko dagg yooya xëy na day ñaw lu bari ba dagg ya bari ba mën caa ñëw loolu moo ko moom ndax loola amulul njariñ borom waaye saa bu desee lu am solo loo xam ne boo ko joxoon borom xëy na mën koo jariñoo doonte mën na caa def ak kaala sañoo koo jël te la sa te may ko ndax alalam yoon na yi nga xam ne liggéey bi moo ko laaj faaw bala ngaa dagg mu mi morceau yi nga dagg ko sànni moom des yu ay moom sañ nga koo dajale ndax am mbalit la booy set loolu ñaar yooyu mat xàmmee des wu mag dañ koy bala nga koo jariñoo laaj ñaan ko borom bu dee yi nga xam ne kiiwul nag sañ ne caa dajale yu bari defar ci mbubb suba moo ko moom euh, mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne nii weeru koor dafa teru nee na ñett fan yu njëkk yi wóoru te nag amul benn ngànt moom dafa wóoru rek mu ne ndax kooku kafaara war na ko wala déet waaw xam nga ramadaan moom bu dikkee képp koo xam ne woor war na la te amoo benn ngànt amoo benn lay bu dëgërit amoo benn lay bu dëgërit soo wóorut bis booba am nga bàkkaar bu rëy fay bis ba war na la ba noppi nga kafaara boole ci da fay bis bi ba noppi kafaara bis bi ngay fay mooy bis bu fekkee ñetti fan la kon dana fay ñetti fan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 ak ñi nga xam sax dañuy def ay bayaan ci jumaa yi ne suba ak noddukat yi ne suba incha allah bu ñu julli tisbaar ba noppi fii ci jumaa ji dina am ak tàggat gu ñuy defal imaam yooyu ak noddukat yi ak ñiy waxtaan ci jumaa yi laata ñu julli ajuma kon suba bu ñu jullee tisbaar ba noppi lañ ko def jumaa ji daayira bi di sàkku ci mbooleem ñi loolu yitteel lépp ñu teew ndax njariñul kese la

dina agsi jataay bi bu ko defee borom xam-xam bi ñu fi dalal danañ ko mën a tontu kon ñu ngi santaat ñëpp waaw suba incha allahu kon ñu fàttali ne ñu ngi war a waxtaane carte mooy lan ak yan lor la am ak yenn ci xeet yi nga xam ne yu beesal ñu di ko def te mu dugg ci carte sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud moom moo koy def kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu teewoon ci jumaa ji ak ñu doon topp waxtaan wi ci bitti ci GMT bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jog jokkoo ak euh, télé grande mosquée bu tubaab bi ci yeneen tele yi ak yeneen site yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñëpp di sant euh, mboolem ñëpp daal wuñ kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.